ngeen a jot moo mën a xam li nga xam ne moom la rek. tey àdduna yëpp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yëpp a ngi tiim di reetaan te dara waralu ko lu dul Macky Sall ñu dénk réew mi lii nag ñun ñëpp daf ñoo war a delloo ci ñu xoolaat suñu bopp mbokki senegal yàgg naa ko wax réew du caaxaan a koy defar. réew mu la raw rek daf laa ëpp parlu gën laa gëm boppam gën laa gëm réewam waaye gë gën laa mën a say sàmmanteeg ay charte yoo xam ne waa réew mi ko teg ñépp yem ci yooyu nag amoon nañ fi ay occasion yu bëree bëri bëri pour di dañ fi parce que lu tel ni état lu toll ni état amul lu muy def lu dul naka laay def pour dajale ay mbir di compléter pour pour pour faagaagal ab nit ça veut dire amuñu état état bi ñu am propriété ak nit la ak clam ku bokkul ak ñoom wala ku ne ànduma ak ñoom bokkoo ci réew mi occasion yi nag ñu amoon nga xam ne lu mel ni assis national defoon na ci liggéey CNRI euh, CNRI yi nga xam ne defoon na ci liggéey ak yooyu ñun ñëpp dañoo war a xam ni yooyu ñu rate moo ñuy moo ñuy moo ñuy topp ba tey jii ba tax nag di ngeen ma may ma gërëm sénégalais yëpp parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne këpp ne jon sénégalais yëpp en tout cas li ëpp Sénégal dañ ne lii gëmuñu laata sax man may génn di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañ naan dañu ne lii ñun gëmuñu loolu ñu ngi sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le temps ñun du ñu gën a gore parce que mënoon na daal keneen ñëpp dañ naan bettu ma mais bi ñu nee Ousmane Sonko siif na li ëpp ci Sénégalais dañ ne lii gëmuñu laata sax may génn man pour wax sama wax. ñu ngi leen di gërëm ci loola di gërëm ñi nga xam ne di bële le huit ñëw nañu yendoog man ca kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane yi si la bokk mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekkee duma yi fekkee bal yi lépp ñu bokk ak ñoom ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom Thierno bokkuma keneen ak keneen su ma su ma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm di gërëm suñu partenaires yi nag parce que bi mbir mi amee ba kenn noppalatul su ma nee lim damay juum fii suñu coalition fi nekk waaye am na ñoo xam ne bokkuñ sax coalition waaye liñ ci daj ku mel ni docteur Babacar Diop bi defe naa bi mbir mi ne kët ne jot moo njëkk a ci politique yëpp euh, euh, ci ma gisoon ko ci site internet yi ñooñu ñëpp ñoom mortala ñiy toog fii nit dof kenn ak keneen nelawatuñu lekkatuñu ñooñu ñëpp parce que ku ma ku déggul turam rek bu ma ko jàppee waaye xam naa leen ñu ngi leen di gis ñun ñëpp ñoom Dame Mbodj damay tooñ keroog benn waaye ne ko man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax Dame Mbodj ak Aïda Mbodj lañ ca daj ak lañu def te defuñu ko pour intérêt bu ñu bu ñu ut si man ñenn ñi sax miinantewuñu Dame Mbodj defe naa benn yoon la ñu mës a gise ñooñu ñëpp lañ ca daj ñu leen koy ñu leen ciy gërëm di gërëm waaye di gën a soññ ndawu senegal ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen liñ leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog te keroog dañu dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ni liñ doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu la ndaw ñi war a keroog may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bii lañu teg ci projet bii nga xam ne moom lañu bokk ngir définitivement nooteel ak ñi ñu yore Sénégal nga xam ne lottal na Sénégalais jóge fi may gërëm tamit euh, gannaaw ñooñu ñii nga xam ne ñooy samay avocat ndax soobu nañ ci dossier bi te caaxaanuñu ci waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñu dem di leen topp assister moo xam dig moo xam feneen di fa yendu suba ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yi yónnee kilifa diine yépp nag laa wax ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul lu mu toll loolu feesal na sama xol trop trop trop trop trop trop di leen ci gërëm dina wax nag ni bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma si sàkku sàkku ci yéen pour ngeen addu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sékkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire ci politique séddu ci kenn nawu ci kenn ormalu ci ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fi ay dossiers yoo xam ne ay xalif généraux woon nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu leen ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom su xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw maa ngi it gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak euh, ñoom Mamadou Lamine Diallo tekkeeg bokk gis-gis ak parti yooyu yëpp walla muy ñi nga xam ne leen ñooy leen non inscrits seen taxawaay bi mbir mi taxaw amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant. waaye di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame ayda Mbodj di ko jagleel kii nga xam ne moo waroon toogal euh, groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne moo waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee weekend bi yëpp ñu dem ci média yëpp nag bàyyiwuñu dafa ubbi bëtu sénégalais bu baax a baax a wax ba ñu gën a xam li ne ci biir mën nañ ci ci élection présidentielle di gërëm it am ne bi mbir mi di jolli defe naa bi biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh a jot ne dugal nañ ko ngir a